asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki Sénégal mbokki àddina ci ndigalu Serigne Babacar Sy Mouhamadunil Mansour xalif général des Tidiane ak njabootu Cheikh Seydil Hadji Malick gi yëpp mbokk yi nag bu ngeen déggee kàddu yooyu xam ni lu rëy moo ko waral muy lan muy centenaire u Cheikh Seydil Hadji borom parasol bi nga xamante ni du ragal tàngaay junjula mbokk yi dégg ngeen programme bi nga xamante ni mooy programme centenaire bi waaye nag li nga xamante ni tey moo ñu tax a jug mooy dimanche bi nga xamante ni ci la ñuy def son boobu nga xamante ni lumière bi ñuy def fële ca stade Alaaji Moustapha Niang nga xamante ni fondation F2STV moom lañ ko teg ci loxoom pour mu organiser ko waaye programme bi ci centenaire bi la bokk mbokk yi ñu ci woo képp koo xamante ni dégg nga sunu kaddu di wax ni programme ba 17 heures lay commencé ñoo ngi ciy woo association de jeunes yi ñoo ngi ci woo mouvement de jeunes yi ñoo ngi ci woo groupement de famille di ci woo bépp daayira di leen wax tamit ni leen am na benn caravane de sensibilisation boo xamante ni jeudi lañ koy def ñu ngi wax ñëpp nañu génn fekkee caravane boobu ndax Seydil Hadji Malick jar na ko waaye mbokk yi nag ñuy wax ni lu rëy lañ koy def mooy bépp waykat boo xamante ni da ngay tagg Cheikhuna Ahmed Tidiane Chérif di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbaa ngay tagg waa kër Cheikh Seydil Hadji Malick ñu nga ciy woo dañ ciy jiital nag ñaar ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi représenté waykat yi ñu xamoon yu mag yi daan ànd ak Cheikh Seydil Hadji Malick di ci jiital kan ki nga xamante ni mooy sunu ndijaay Abdoul Aziz Mbaye ak waa kër Moussa Ale yëpp waaye nag di ci teg ki nga xamante ni mooy alxaaj dut kenn mbay bi nga xamante ni boo ko déggee sa xel day dem ci waa kër alxaaji mbay donde yëpp waaye nag mbokk yi yamunu foofu dañ ciy dugal ki nga xamante ni mooy sunu rak di sunu xarit di Sidi Mbaye le grand chanteur waaye nag di ci teg Cheikh Tidiane Mbaye di doomu góor gi alxaaji mbay donde mbay turandoo Cheikh Ahmad Tidiane yi si almaktuum waaye nag di ci teg le grand chanteur muy kan di Ngagne Mbaye waaye nag di ci teg aussi pap Malick Mbaye Thiat bu góor gi Alhaji Mbaye Donde waaye ñu ngi woo aussi ki nga xamante ni mooy le grand chanteur di Sam Mboup bi nga xamante ni ci xadara bi la bokk waaye ñu ngi woo Moustapha Mboup ñu ngi woo ki nga xam mooy Alhaji Moussa Ndiaye ki nga xamante ni aussi mooy Pam Maxtaan Ndiaye ci la bokk ak Ousmane kan ak képp koo xamante ni tàggkatu yonent bi nga képp koo xamante ni ci xadara bi ngay wuyoo ñu ngi lay woo inchaa allahu rabbi dimanche nga ñëw fële ci stade ba li ñu bëgg nag mooy na ñëpp teel a ñëw ñu def programme bi mu neex inchaa allahu rabbi programme ba nag yamul ci ay way kese am na aussi ay gàmmukat mbokk yi bu ngeen déggee nga xam ne bis la boo xamante ni bis bu ala dawma la na ko Seydou Mouhamadou Mansour borom daara yi doon waxee mbokk ñuy wax ne nag ñi nga xamante ñooy def conférence boobu ñooy def gàmm googu dañ ciy déefal tafsir Abdourahmane Gaye nga xamante ni dell ak xam-xam la def yàlla ko yàlla fal cat waaye yemuñu ci kooku nag Mansour Diène doomi sunu góor gi Oustaz bi nga xamante moo daan def tafsir ci kër Cheikh Seydou Aboubacar bàyyiwunu kenn nag ki nga xamante ni nag mooy ñeenteel ba di Abdou Aziz Doucouré torondoo Serigne Abdoul Aziz Alamine taalibe Serigne Abdoul Aziz Alamine moom it ca waxtaankat ya bokk mbokk yi mu ngi noonu programme ba fondation F2S TV ñoo koy organisé mooy sama ki ma àndal waaye nag képp koo xamante ni taalibe Seydi Hadji Malick nga ñu ngi la ci woo bàyyiwunu France bàyyiwunu Amérique bàyyiwunu Asie bàyyiwunu benn réew képp koo xamante ni Seydi Hadji Malick lebal na la teranga ñu ngi lay woo dimanche boobu nga ñëw ca ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm presse bi di gërëm waa kër Cheikh Seydi Hadji Malick jërë ngeen jëf